pour éveiller conscience yi liggéey pour yee jeunesse Casamance yi ni ki un autre Casamance est possible avec mm. nous. mais ñàkk a aussi xëy na am na lu mu doon def parce que aussi euh, voilà on sait tous que la première force euh, foofee euh, ginnaaw élection yi ñu génn euh, parti bi mu jiite woon la coalition bi mu àndaloon nag. comme ni nga ko waxee mënu ma ko bañal mooy mm-hmm. maire bi foofu mm-hmm. tey Ziguinchor était conquise par Ousmane Sonko loolu bu njëkk la woon mais lépp loo gis coppiteeku am na jamono fu nu toll ni y a un changement majeur mm-hmm. mbir yaa ngi changé la tendance a changé bokk wala ñàkk bokkam gisuma ñun lu ñuy yëngal ci liggéey bu nekk def parce que wóolu leen suñu liggéey gëm leen suñu liggéey gëm leen ni ki actuellement Ziguinchor lu ñu sëq ak ñoom muy ànd nawle su jotee neen wane seen bopp ah. kon amul lenn lu mu changé ci doxalin que mu bokk mu wañ bokk mais comme que dossier justice la fu mu nekk nu ngi koy ñaanal ci loxo yoon su fa mu nee génn mu génn fa comme tout d'accord on va laisser Ousmane Sonko euh, ci touche bi wax ci yéen ak li ngeen xam ne yéen ko fi amal comme liggéey jamono ji ci yow laay tàmbali peut-être ak euh, kuréel gi nga xam ne yaa ngi ci booba euh, dafa amal liggéey bu am solo on a vu des images aussi une forte mobilisation ba bëggoon a xam tey jii ni fan nga jàppee ne fan nga tekk ne diggante daaw ak ren tendance bi changé na ba nar poursuivre ci présidentielle yi nga xam ne ci la jëm. waaw soo xoolee cartographie apprécier ko liggéeyaat ci base bi dellu ci waat euh, suñu doolee force Ziguinchor du doonoo xëy tey rek ñëw laaj ko. Mhm. lu nu yàgg liggéey la man sama wàllu bopp depuis 2014 maa ngi sur le terrain à travers ADZ association pour le développement de Ziguinchor di liggéey ak waa Ziguinchor yi nga xam ne ci bépp fànn ci côté développement ma am benn mouvement politique bu ñu ne Ziguinchor suma yitte suma moomeel. Mhm. ci kaw loolu xoolal manifestation bu ñu fa def la dernière fois gis nga Mamadou Awa lu fa ñëw juróom bu mbégte bu ma àndal musuma ko am sama àdduna. parce que ya a une réponse spontanée de la population Ziguinchoroise ñu ñëw wuyu si wuyu si bi nga xam ne du car rapide bi nga yebal ci nit di xaalis bi nga jox ci nit Ziguinchor yi noo ñëwal seen ñëw bopp mhm. ñëw wuyu si seen wuyu si bopp xool ñun fu leen jëmee te bu ñu toogee waxtaan ak ñoom autour d'une table waxtaan ak ñoom franchement xel daal na mais loolu avant avant ñu ñëw ci euh, li mu nar am comme conséquenciation élection yi ñu jëm euh, euh, naka ngeen liggéeyee loolu bëggoon naa ko xam tuuti parce que y a y a pas encore longtemps Ziguinchor gis nañu que ne les les les populations les Euh, seen i nopp seen i baat yëpp dañ ko joxoon euh, ñi nga xam ne ñooñu ku jég yi tey jii nii nga jàpp ne euh, affaire yi mën na soppeeku ma bëggoon a xam quel travail vous avez eu à ba xam aussi yow rek la wala ñi ngi ci àndal bokk di soutenir la majorité présidentielle da ngeen def benn bloc pour liggéey loolu. loolu travail de terrain moo nu ko may c'est un travail de longue haleine li nga xam ne tàmbalewuñ ko tey rek à la veille élection yu ñu génn yu ñu perte ñun dañoo toog ñu am beneen gis-gis hmm. lépp loo gis am na luy tàmbale nit ki mën nga ñëw nga jaay ab léeb la rek hmm. lépp boo gis day daanu yàgg yàgg nu mu neex neex nu mu neex neex day tàbbi am na lépp fu muy toll. ñu léegi tàbbi mais mais mais mais euh, du léeb waxuma day léeb ah. mais tey waxuma day léeb ñu ko jox nopp. ba léegi waxuma day léeb ñu ko hmm. jox xam nga fépp foo dem am na ko la jox nopp yow te soo demee sa gox sa am na fu la jox. Hmm. mais lan mooy poids bi. tey ñun travail de terrain la ñun ak waa coalition bennoo ñu fa nekk ñun hmm. suñu wàllu bopp. dafa doon li nga xam ne depuis des années nu ngi koy liggéey depuis des années nu ngi koy te gën am solo mooy ànd bu nu ànd de ma part à Ziguinchor je suis pas en terrain bi nga xam ne xamuma ko. Mhm. foofu laa juddoo foofu laa màggee te foofu laa yàgg jëflante ak ñoom te jëflante bi ma jëflante ak waa Ziguinchor du jëflante bi nga xam ne dama xaar ba am ndombal tànk ñëw fa. en étant Ziguinchor waa naturel dëkk fa màggee fa juddoo fa dama mus a sëflante jëflante ak ñoom jàmm. Mhm. xajal leen sama biir di leen di gungee may leen nopp te xam nga Sidious lu mu gën a soxla mooy ku koy déglu ku koy yëg ku mm. koy déglu te ci loolu la ñuy joué ak ñoom donc bu ñu évoluer suñu bopp ñu gis ni ki la tendance à changer la tendance à changer positivement am na réveil de conscience mais am na nattukaay parce que élection mooy nattukaay te bu mujj bi ñoom la woon fii ak 2024 euh, il reste encore quelques nga xam ne mooy côté Ousmane Sonko ci diggante bi la moo xew am wala on l'a mis à l'épreuve ci mairie Ziguinchor bi mu ñàkk def résultat wala wala qu'est-ce qui s'est passé. waaw soo xoolee mairie Ziguinchor wax ma ne ñàkk def résultat soo xoolee Ziguinchor fu mu nekkoon. Mhm. ak Abdoulaye Balde ak fu mu nekk léegi coppiteeku am na coppiteeku ci wàllu njaaxle. comment ça jaaxle Ziguinchor depuis boobu ba léegi soo xoolee euh, commune bi liggéey bi doxatul Ziguinchor mosuloon inondé. peut-être xam nga Ziguinchor wala dégg nga ko. Mhm. lu muy taw Ziguinchor du ko taw Dakar. mais mosuloon xam inondation Ziguinchor léegi day taa ak yeneen ak yeneen mais yemewuñu ko ci lu mu liggéeyul. Mhm. mais ñun suñu wàll mooy population bi moo nu yitteel. population bi leen waxal leeral leen ci lu bëri di dugg ci kër yi di def proximité di ci liggéey nag ak ñu fa nekkoon. Mhm. parce que avant moi y avait des leaders. c'est vrai ma booleeg leaders mais des leaders qui n'ont euh, mais danoo boole mais doxandoowuñu. ok xam nga ku mhm. a dóor dóor boobu du am doole mais danoo booloo suñu doole. di yëkkatendoo di dóorandoo moo nu waral changement. mais est-ce exact mais Dakar et Ziguinchor c'est compliqué. compliqué rawatina Ziguinchor jamono yi ñu toll. xam nga tey soo déggee ku dégg ku xamul leen Ziguinchor c'est compliqué pourtant ce n'est pas compliqué Ziguinchor lu nu bëggoon ku leen jox nopp quelqu'un qui à leur écoute Ousmane defu fa lu fa kenn mënut def. mais c'est une voix en fait qui porte c'est un espoir pour toutes ces populations. cet espoir est porté en moi aussi je suis une voix je suis l'espoir de la jeunesse actuellement à Ziguinchor waxuma la Ziguinchor rek beneen dëkk ku fa demoon woote jamono yooyu mhm. xale yi sonkorisé la am na wala amut mhm. tey da génn ci mbedd sax woote politique sax ni sonkorisé ku dem biir Ziguinchor sosoo fa génn def benn ful di dox ci mbedd yi organiser fa assemblée générale bi nga xam ne depuis le candidat Amadou Ba ñu investir ko bi musul am Sénégal wër këmm mhm. mu njëkk ko def Ziguinchor déggoo kenn ku yuuxu Sonko wala leneen wala leneen loolu mooy wane de conscience loolu mooy wane ku bokk su ngeen entretenir seen diggante yéen responsable yi a waaw damay daaneel fi nga mujjee man sama ànd ak euh, coalition Benno Bokk du ànd bi nga xam ne dafa assujetti ni jox ma dara. Mhm. tey cadre la maa ngi liggéey maa ngi sant yàlla. ànduma mouvance présidentielle pour xaar dara si ñoom. pour xaar dara retombé important aussi. non pas pour yow pour ñi ne sa ginnaaw. sama gox lu mu leen di jox tey xaaruma pour am ndombal tànk jox leen ko te maa ngi koy jëf ak ñoom Ziguinchor. Mhm. manquélu ma ci dara tey damay profité seen antenne di remercier. sunu euh, collaborateurs yu fa nekk ñi am ndombal tànk en l'occurrence le ministre Doudou Ka président fal na ko ministre de l'économie renouveler confiance am ci moom mhm. lu am solo la Victorine tam président renouveler confiance lu am solo la loolu dafay wane ni kii tey que ce soit le président Macky Sall wala le ministre Amadou Ba bàyyi neen xel Ziguinchor est-ce que xam nga ñaari postes yu ñu jox lan lay tekki ci économie Sénégal xam nga soo waxee économie dëkk nga wax l'économie formelle ak l'économie informelle kan moo l'économie du Doudou mhm. kan moo informel du microfinance kon ñun noo tënk ñaari loxo Sénégal c'est très important mais est-ce que ces outils vont vous permettre na euh, de faire quelque chose boo xam ne dina leen indil euh, mbooloo mi ak baatu baatu waa Ziguinchor absolument xam nga tey lu njëkk solo mooy recadrer la Casamance au sein du Sénégal wane neen suñu bopp à travers nomination yi a toogaat mhm. dafa gën a toogaat yeesal boppam boppam tey nga ne Doudou ministre de la microfinance ñaari banqaas économie nga téye tey ku wax économie wax le secteur formel ak le secteur informel le secteur formel c' est la coopération ak yeneen ak yeneen mm-hmm. le secteur informel c' via la microfinance ñan noo ko yor ñun noo ko yor donc c' un atout fort il nous a lancé un signal fort ni ki leen di bàyyi xel mm-hmm. bàyyi xel boobu mooy lu cër Abdoulaye Baldé ñoom ñëpp muy Abdoulaye Baldé bu njëkk ba comme nu mu la ko waxee coalition la soo xoolee tuwaay coalition bi génn mbedd mënu fa ñàkk. Mhm. mais bu ñu demee ba toog ni ki xam ne actuellement nous avons qu'un seul objectif c'est quoi élire Amadou Ba au premier tour danoo toogaat waxtaan suñu biir. Mhm. di yëkkatee ndoo di tegandoo. et vous pensez que c'est faisable bon pas élire Amadou mais remporter Ziguinchor parce que loolu aussi euh, au-delà même de la victoire d'Amadou Ba dafay nekk lu symbolique loo xam ne day wane que ne ka fa amoon doole moom euh, wax naa la Ziguinchor tey suñu doon wàññi tey parrainage rek dina ko wane. ñun rek suñu mouvement rek on va collecter trente cinq mille par an. ah bu ñu commencé lundi leen commencé teel a laan àjjuma. ñu mhm. ngi ci quinze mille. kan moo ko def est-ce que jamono tolloo na nit xalaat ko lundi ba vendredi ñaata la du juróomi fan. te juróomi fan yooyu lancement bi rek laa dem fekkee leneen yëpp maa ngi toog on est à mais mais bi ngeen koy am euh, xeebaluma leen ko et c'est très bien pour cinq jours pour cinq jours la prouesse la lu ne il est de la course là il revient dans le jeu maanaam yëf dana gën a rudd ci seen seen biir. waaw xam nga ñun sunu sunu combat c'est pas lié à une personne. sauf que am na ci solo. am na xaar parce que ñun suñu combat. suñu terroir la. Mhm. suñu gox la tey jël le débat ñun suñu débat mooy ëllëgu Ziguinchor te ëllëg Ziguinchor ne repose pas à une personne bëgguma ni jël combat bi rek centraliser ko si jëmmu Ousmane. Mhm. suñu combat suñu gox la. d'accord suñu combat suñu gox la nu ñuy sukkalee Ziguinchor ñu ñuy defee des politiques de développement bi nga xam ne bépp Ziguinchor waa gis si boppam. Mhm. ñun suñu yéene mooy tey nit dootul jéggiwaat pont ñëw Dakar. lépp lu ñu soxla war nañ ko mën am Ziguinchor te lu ñu gëm la nu ngi ko ci mais justement loolu c'était un problème pour Ziguinchor euh, enclavement bi ñu bëri ko doon jooy jàpp ne sax tey euh, euh, en partie dû bi ci wax la woon mais enclavement amatul soo xoolee pont bi rek benn pàcc la mhm. a jeune soo doon jéggi di ñëw ay jours nga fa doon def ça c'est vrai j'ai connu ça ak Macky Sall moo nu andil des bateaux liaison maritime bi avec des bateaux performants maa ngi profité ci lii di yeesalaat appel bu ma koy lancé parce que bu ñu toogee wax naa ko pour reprise bateau bi bateau bi faw mu jóg parce que bateau bi cordon cordon bu am solo la cordon bu am solo la ci mhm. économie mhm. dégg nañu te am naa yaakaar ni ki le premier ministre Amadou Ba premier acte bu muy teg ci Amadou 2 bi mooy dolloowaat liaison bi waxtaan neen ci te am naa ci yaakaar dina ko dolloo loolu c'est quelque chose qui est fort buy wane dëgg nañu ñun collectif des cadres buñ ci waxtaanee moom parce que xam nga sooy waxtaan ak mhm. kilifa waxtaan ak moom a waxtaanee on a porté le débat fu ñu ko war a porté il a donné des rassurances na dellu kon désenclavement soo xoolee tey euh, Mamadou Awa Casamance am na boucle du Boulouf am nañ boucle du leneen leneen l'électrification rurale réalité la. mais avant loolu ba baal ma dafa am solo loo wax par rapport ak euh, liaison maritime bi nga xam dafa arrêté woon jamono yi weesu. ñu bëri ils y ont vu euh, benn volonté euh, voilà de mener un combat contre les habitants de de de Ziguinchor benn ñaar aussi ce qui est arrivé à Ousmane Sonko dinaa ko waxaat ñu mën nañu gis une volonté d'écarter quelqu'un boo xam ne il est du sud parce que wax waxam méngul woon ak nguur gi maanaam appréhension boobu yenn waa Ziguinchor yi am ci yéen aussi ça ne fait pas votre affaire. déedéet xam nga loolu peut-être am na ñu ko am mais du waa Ziguinchor tey benn waa Ziguinchor sul sentir boppam ni ki bokkul Sénégal. exclu musul sentir on est exclu ñun tey leen gën a bokk Sénégal benn ci man sénégalais la. ak hmm. ñeneen ak ñeneen tey suñu bokkuloon Sénégal cër bu nu am Casamance duñ ko am tey lu nu am Casamance gis nga PSE bi. pàcc buñ ci am gisuma beneen gox bu ko am ci Sénégal lu may wax lu concret la. Mhm. sànq maa ngi la ko doon junj mooy électrification rurale. tey euh, le Ziguinchor waa qui chez moi à Diatok a les mêmes privilèges en termes d' que le jeune qui est Plateau. Mhm. tey l'eau courante c'est une réalité tey couverture tey da ngay toog Ziguinchor nga dem da ngay connecté wu ci village bu nu xóot da ngay internet am nga réseaux sociaux on couverture. Mhm. couverture ci loolu yëpp mooy ay jàmm la paix définitive la paix des braves nu ngi ko xam grâce à Macky Sall amoon na jamono am na heure yi nga xam ne soo wàccoon Cap Skirring pour ñëw Ziguinchor suñu la escorté wuloon mhm. kon jàmm ci la ñëpp xëy ku ñu jox jàmm. Ah, jàmm bi xëy na ci conflit Casamance bi euh, alhamdulilah sant yàlla mais aussi de notre côté on a yi amoon na dernièrement depuis mars 2021. waaw loolu dañ ciy jaale ñu si ñàkk seen bakkan. di ñaan lii yàlla na fi gëj te bu mu fi amaan comme ni ma ko wax rek manque de communication amoon na ndaw yu ñu fa amoon il fallait qu'on les conscientise te actuellement on a joué un pacte bi nga xam ne nous avons l'espoir que le premier ministre Amadou Ba va nous accompagner à maintenir cette dynamique mm-hmm. tey sant yàlla ndaw yi jox nañu bopp ndaw yaa ngi déglu te am nañ yaakaar bu réy suñu tey dynamique boobu am naa yaakaar premier ministre dina ko sécurisé pour ñu accompagner nu ko gis na ni ki ndaw yi démb ku ne ñu doon xaar cas Ziguinchor tàkk mm-hmm. ñëpp ñu ngi doon xaar procès bi Ziguinchor tàkk na est-ce que dégg nga lu fa tàkk. mais y a eu une décision boo xam ne dafa leen na moo tax. déedéet a un travail de terrain que nous avons fait. un travail de hmm. leen waxtaan ak ñoom quelle que soit décision bu génnoon dëmb dara du am Ziguinchor. Ah. parce que lu tax ndaw yi xam nañ ndaw yi yeewu nañ waxtaan ak ñoom tey génn lu ko waroon nit yi dañ doon jaawale débat. xam nga lu am na fu muy toll dañuy jaawale dëj ak ngénte <laughs> am na jamono yu doon jaaw di gis génn nga fone lii la ko war a déedéet xoolaatal bu baax xoolaatal bu baax kon sama waa maa ngi leen ciy sant ci mhm. réveil de conscience boobu di leen remercier ci déggal gun ma déggal parce que démb balaa boobu avant boobu on était sur terrain ñu waxtaan ak ñoom mhm. démb bu mu amee les principaux leaders on a discuté ñoom yàlla def na ci tour ndox bu sedd mhm. quelle que soit décision bu mënoon am jàmm rek a fay dikk yaa ngi wax sànq le président a eu à faire pour la région naturelle de la Casamance rawatina Ziguinchor nga xam terre de conflit bu ma ko tuddee noonu euh, tey jii il euh, ni euh, nga ku am yaakaar lool ci moom le profil bi nga xam ne tànn nañ ko te ñenn ci yéen récuser ko dafa mel ne yéen bokk nañ ci avis boobu noonu. waaw xam nga tey tànneef soo jiitelee nit nga ne ko tànnal ma mu tànnal la rax si doole mu tànnal la ku gën. Mhm. bokkul de. tey mënoon na tànn keneen mënoon na tànn keneen ñu am lu ñu ciy teg mais nga jiital nit nga ne ko tànnal ma rax si doole mu tànnal la ku gën. comme nu ko tubaab di waxee le meilleur choix. mu tànnal nu Amadou le meilleur choix. le choix de la continuité tey président Macky Sall daf nu euh, tabat ci per ci PSE. Mhm. tabat ci émergence ñu dund ko xam ko ñu koy pratiquer au quotidien mu àndi nu Amadou Ba mu war a doon la continuité la continuité vers la performance ñun dépassé nañ émergence xam nga wax performance. mais est émergence bi ñu ngi ci sax. parce que su Macky Sall c'était compliqué c'est vrai il y a des ponts il y a des routes il y a voilà mais côté euh, dundinu askan wi nekkin wi aussi c'est très très compliqué. waaw xam nga soo jegee émergence euh, euh, ay indicateurs yi nga xam ne dans sa globalité. Mhm. tous les indicateurs ne peuvent pas être au mais mhm. aujourd'hui il y a des indicateurs les indicateurs qui sous-tendent l'économie du pays sont au tey su ma ne su la neexee nga toog nga ne yëgoo ko dundoo ko lan nga doon xaar nga ne yëgoo émergence dund ko tey man fu ma dëkk sama gox di kaas eh, yàlla may na ma sur le plan professionnel ak sur le plan personnel j'ai eu à sillonner l'ensemble euh, des régions du Sénégal mm-hmm. commune par commune département amul gox bu ma demul mm-hmm. waxtaan ak jeunes yi diisoo ak ñoom émergence nu ngi koy c'était quoi le but pour xam seen ay jafe-jafe xam seen jafe-jafe leen parce que pour porter la voix de la jeunesse il faut les fréquenter et les écouter les écouter c'est pas à travers benn plateau télé mhm. nit woote nga déglu ko déedéet demal fekk leen seen quotidien tàllal leen nopp xam seen bébét ñu bëri gisoon neen dundoon neen mais xamunoon communication la xam nga le président Macky Sall problème bu nu amoon mooy lan il n'avait pas de vrais commerciaux mhm. xam nga lan la wax de vrais commerciaux les gens qui xam nga tey kuy jaay rêve ak kuy exécuter la réalité bokkul de mhm. bokkul de suñu yeewoo soo seulement nga xam ne lii ci nelaw nga nekkoon bi yaa ngi yeewu Macky avait fait des réalités mais on avait un problème de vrais commerciaux une jeunesse qui pouvait vendre les réalités les réalités vendre les prouesses du président Macky mais ñun danoo sol suñu daal li nga xam ne kenn yebalum mm-hmm. du moom a jox ndombal tànk lu kam dem ci jeunes yi waxtaan ak ñoom fu Sénégal toll fu nu toll comparé à la sous-région xam nga nit ki sooy wax il faut nga am indicateur de comparaison. Mm-hmm. sa indicateur de comparaison mooy ci ensemble bi nga bokk mooy UEMOA sous région bi soo seppee les pays miroirs nga gis ko xam sa réew fu mu toll ndam la nga comparer ko projeté dans les autres pays qui sont dans d'autres sphères yi nga xam ne ndam la tey les mm-hmm. Sénégalais ont compris. Mm-hmm. sant yàlla Macky de fu mu jëmee woon. bu mu doon jël Sénégal ak fu nu yóbbee alhamdulilah lañ wax. ah vous êtes euh, le président euh, du collectif des collectif boobee euh, ñan ñoo ci nekk ak la moo ko tax a jug réellement. waaw collectif bi bu ñu ko doon sas c'est au lendemain naufrage bateau le Joola Mamadou Awa bateau le Joola mu doonoon lu metti ci Sénégal lu métti ci Casamance au-delà du nombre de morts. Mm -hmm. on a perdu toute une génération. Ça, on a perdu des cadres te cadre du ci diplôme rek cadre concept la ak niveau d'éveil de mentalité. Mm -hmm. menu un chef menuisier peut être un cadre. un chef plombier pauvre mais on a perdu toute une génération c'est comme si on a pris la graine de la Casamance la graine la plus mûre mhm. moom leen perdoon ci batalo Joola mu doonoon lu métti mu mhm. fekkoon ni ngi étudiant ñu toog ñun Casamance dans sa diversité ñu ne faw ñu teg benn kuréel bi nga xam ne daf ñuy jox un cadre d'expression kuréel bi nga xam ne naka la ñuy préparer relève bu ñu perte expression réflexion proposition c'est important parce que toogoon di jooy suñuy moor rek mm-hmm. fajuloon dara ça c'est vrai jooy na leen ni ngi leen di continuer di jooy mais dañoo ne il faut que ñu créé woon cadre boobu cadre boobu bu ñu ko créé ça a regroupé des sénégalais d'ici et de la diaspora mm-hmm. ñu toog méngoo fa bokk fa ñu doon une force de proposition très écoutée en Casamance te écoute boobu moo waraloon bu nu wootee euh, Ziguinchor ñëpp ñëw gis nga lu ñëwoon en dehors de la de la quantité mm-hmm. il y la qualité képp kuy kilifa diine Casamance soo ñëwul yebal nga lu am solo tey nga woote toutes les forces vives de la Casamance ñoo wuy si la li nga xam ne joxoo kenn noo def seen organisation bopp ñëwal seen bopp loolu am solo loolu lu ko wone dafay wane le collectif des jeunes cadres c' est une structure écoutée. Mhm. écoutée et attendue sur beaucoup de cas de ah, réflexion. écoutée attendue sur beaucoup de cas de réflexion ñun teewlu jamono joo xam ne euh, Sénégal daanaka xol yi déggotuñu gis nañu que ne ñu bëree bari ca yi juboo jafe na leen trop ngeen bokk foo xam ne bu ngeen waxee dañ leen di déglu parce que on sait tous que ki gën a souffrir euh, xëy na kàddoom bu defee amee étude de dépassement rek ku ñu war a déglu la tey jii nii euh, fi ñu toll nii naka lañ mën a demee ba xëy na. yëf yi mën a améliorer wu positivement euh, ci côté politique côté justice parce que même les sénégalais souvent tey ñaañu bokk même famille waxtaan daf leen di jafe. waaw xam nga loolu yëpp li ko waral wax nga kàddu bu am solo. foofu laay jàpp mooy waxtaan. Mhm. xam nga fu ñu toll nii on ne peut pas créer un nouveau type de sénégalais. ñu ne dañuy créer un nouveau type de une génération se régénère su ma juumul tous les vingt cinq ans. Mhm. on n'est pas à vingt cinq ans <laughs> toll mooy lan dolloo siwaat Sénégal seen Sénégal. waaw dolloo siwaat le sénégalais au cœur sénégalais lu mu doon banaliser parce que kàddu yu fi jógoon la comme ni nga ko waxee xol yi feesoon na mhm. lu bari feesoon na mais lu ko waral ñëpp xam nañ fi jaruñu ciy delluwaat mais aujourd'hui suñu suñu objectif mooy ñun jeunesse bi génn dem wax ak suñuy moroom wax ak suñuy nawle andiwaat leen ci Sénégal. mais wax boobu noonu moo xaw a jafe en fait ñu bëri mënatuñ ko fi mu nekk nii. waaw ñu bëri mënatuñ ko ça suppose que relation bu leen relier ak seen waa gox. ñun de ah. mën nañ ko. Casamance maa ngi wax ak ñoom aw ma fa sens interdit tey suñu pare su amoon vol guddi bi ma dem Casamance. kër mais en Casamance on sait tous que tey jii nii un meeting de Doudou Ka wala un une balade moo koy tuddee noonu euh, devant la maison de Ousmane Sonko mën na ni problème lu ñu gis la. waaw mën na ak ban problème man def naa ko fu ma def sama assemblée générale devant euh, le premier adjoint au maire de Ousmane foofu laa ko defee def balaat jaar foofu yooyu yëpp mais kenn génnul parce que tax si ñoom laa bokk mhm. Casamance la doomu Joola la foofu laa dëkk te di wax ak ñoom lu leen mun dëkk ànd bi du àndu tey ànd nawle la mhm. doonul ànd bi nga xam ne dama xaar jekku dara wala ñëw dara wal leen di leen jaay maay kan déedéet si ñoom laa bokk tuuti lool si ñoom mais ñëw lu ma am doloose ko ñoom di waxtaan ak ñoom yóbbu leen fi nga xam ne yaakaar moo fa nekk mm-hmm. xam nga mbooloo tënk seen kaddu ñu ne la Chérif Assane yow wóolu ne la foofu la loolu sas bu diis la mm-hmm. gis nga Casamance dan ma sas sas bu diis gis nga manifestation yu am yëpp saa su ma ñëwee intervenir xale yi kalbu bu gënoon jaxasoo Casamance dama dugg vol dem foofu mm-hmm. toog waxtaan ak ñoom mais xol yi dafa dellu siwaat waxtaan ak ñoom soose bi su waxee ma waxtaan ak ñoom joolaa bi su waxee waxtaan ak baynub bi dans sa diversité ñun ñëpp ko bokk wan leen lu ñuy xeex nii suñu moomeel la tey Ziguinchor yitte la ñun ñëpp ko bokk mais man lu ma yitteel la. Mhm. te ci yitte boobu bu ñu ci waxtaanee xol yi dafa tapé. mais Ziguinchor ak richesse bu fa am euh, Ziguinchor potentiel bu fa am ndaxte bëri na ay ndaw euh, suuf si euh, àll bi tout ça est-ce qu'il est tey jii ni ñu naan ñu ay nit ñu ngi fay jógee di jéem a génn Sénégal bay ñàkk seen bakkan. waaw xam nga jógee bi fépp la am même soo demee dans les pays développés nit a ngi jógee lu tax muy jógee c'est x raison néew ma jógee boobu dama koy ñaawlu. parce que nañu gëm suñu bopp. Mhm. man man muy wax ak yow musuma xam bitim réew ci cadre jàng dem fa. peut-être dans le cadre professionnel. tukki mhm. na doomu Sénégal la fii laa juddoo fii laa magee produit pur et dur université Cheikh Anta Diop. Mhm. mais da ngay gëm sa gox. gëm sa gox am yaakaar sa réew am sa yaakaar sa pouvoir public le chef d'État à travers ses programmes et projets teg na fi ay. ay schéma yi nga xam ne bépp jeune su ko gëmee war nga si gis boppam ça est entre dent fait on peut pas nag wax ñëpp noonu toog satisfaire tout le monde mhm. nit ku ne am nañu yàkkamti seen schéma am nañu ne ñu foog ne su suñu génnee tey tey war na mun sotti mais gëm naa ne ki looy jël investir ko pour génn 4 millions wala 5 millions soo fi toogee tàmbale projet mhm. tey soo fi xoolee jeunes yu fi doon jéem ba tàmbale bu ñu doon jógee Saalum wala jógee feneen di ñëw lu ñu doon andi capital bi matul 100 000 mais dañ ko gëm. Mhm. suñu objectif mooy lan dolloo si gëm-gëm boobu ci sénégalais wal leen fii lépp mën na fi sosoo lépp mun na fi baaxee te suñu pays naat na fu ñu jëm mooy lan du pétrole ak gaz. Mhm. kan moo ko fi am soo limee Afrique ba réewule. suñu réserve yi am nañ solo trop. réserve yu am solo mais réserve yi ñan noo ko war a liggéey ñun la. ñun les sénégalais nan fi toog gëm ko te président Macky ubbi na loolu démarré ko te mhm. Amadou da koy consolider. sa force vive faire de l'ensemble xam nga la la jeunesse on y ba ñu adopté ko. lan ngay wax Macky Sall bis Macky am na lu mu tàmbale woon nous sommes dans une coalition Macky a entamé quelque chose Amadou va le consolider tey euh, fondement on le rectifie pas au deuxième étage <laughs> tabax dañ koy rectifier au deuxième étage kon ñun def neen fondement bi yeesal rek a des te ak Amadou mu neen ko yeesal gis na Amadou lu tax suñu choix porté ci moom Amadou c'est le général des réalisations de Macky Sall moo fekkee bu ñuy nas. moo fekkee Amadou c'est la dette moo tax mu ne le général armée soo général kay sës nga. c'est le général des réalisations de moo fekkee bu ñu ko doon nas te lu gën a am solo dafa jox nopp. no je veux dire avec Amadou Ba euh, c'est c'est la dette en fait lépp bu bëri. daa dette fi ñu toll c'est c'est c'est ce qu'on dit. d'accord mu looy wooyee dette te une dette soutenable.

dama doon def 486 kilomètres pour ñëw jàngi si Dakar léegi damay génn samay rakk dañuy génn seen kër dugg mhm. samay rakk dañuy génn seen kër dugg donc Amadou pour man Amadou c'est l'espoir de tout une jeunesse sénégalaise man damay sànni un message mm -hmm. appelé à la jeunesse surtout à la jeunesse de mon yaakaar bu nu am ba porté ko ba ñëw fii nañ ko gëm nañ ko gëm te mun na sotti. Mhm. nañu tappe xol yi boole ko doon benn ñu xam ne Sénégal bi sunu moomeel la. te ñun ñëpp la yitteel te mun nañ ko soppi suñ ko gëmee au soir du 25 février la région naturel de la Casamance sera un acteur majeur dans l' élection de Amadou la citadelle est la citadelle est et on a commencé à conquérir une grande partie de la citadelle. jërëjëf di la sant bu baax a baax. merci beaucoup ñu lay sant di remercier di la jaajëfal ci invitation. merci beaucoup c'est un plaisir pour nous Chérif Assane Sagna moo nekkoon sunu président du collectif des jeunes cadres de la Casamance président également du mouvement Ziguinchor sama yitte sama moomeel et président de l'association pour le développement de Ziguinchor di daje